jaa ngeen def mbokk yi yéen ñi saxoo di topp seen site internet murid point info tey nag ñu ngi ci waajtaayu tabaski te ku dégg tabaski ku ne xar dina la yitteel ñu doxantu woon ba fii nga xamante si moo di daralu nindi ñu fas dugg wala li nga xamante si moo xew ci dara yi ndax xari cher na xari cherul jaaykat nan leen koy dundee ak client yi nga xamante si ñoo jënd nan leen koy dundee ñu sama caméraman topp mu ñu dugg si wala li nga xamante si moo am ci biir daral bi Eh, jërëjëf sëñ bi ñu la doon laaj sa tour ak sa sante Miftaw Ndiaye waaw. waaw ginnaw bi la fekke fi nga xamanteni ci yow yaay seeraan bi nga xamanteni ci mo ci daral ndindi bi ñu doon laaj ba xam daral gi lan mo fi am xari ndax cher na wala cher moment bi période tabaski bi. assalamu alaykum wa mbolo mi ci do mo ngi leen nuyu ci tour ci tour ci daraje sëriñ bi di leen fay ci daraje sëriñ bi ah marché bi mi ci suufu señ fallo waye marché serigne Touba. Ah, mbolo mi fi nek nañ fi dajale di fortatu lu ñu ci njabot gi ak lu ñu ci def addiyay sëriñ bi ah, léegi nak xar mom bari nañ fi wax deug yalla sour nañ it yomb nañ kep ku bépp kep client bu dugg ci marché bi bul bul bul bul bul bul bol la bu la kenn topp ko xamut koo xamut bu la topé arrêté ko eggal ci xar mi ngay jënd waxaale ba yubo soy joxee sa xay ci joxal borom xar mi bu ko jox kenn parce que marché bi lu ne lu ne ngi ci tey bëgg nañ ñun ñu fi liggéey bëgg nañ lu jub lu jub dong nu tax samp suñu place yi di léegi ah lu fi waay jënd it yàlla na barkeel lépp lu fi waay jënd it bu soobee sëñ Tuubaa dañ dañ ko weefal man maay jëwriñ ji waaye wax naa gars yi woo naa leen réunion démb wax naa leen waaye fal leen një njëg yi ndax ah, tegaay lu tegaay lu yem dana tax mu barkeel waaye tegaay lu bari. Ah, ah, ah, sun borom da ciy téye loxo euh, euh, te sun borom lu mu téye loxoom rek yàlla mën na. xar yi laadu mi xar yi cher na wala cher wala yi ñu ngi ñëw naa yii moom cher na yii moom boo leen gisee xam ne cher nañ parce que yii jar ay 2 millions ay 3 ay 4 millions yii moom boo leen xam ne cher nañ yii cher leen fi bàyyi waaw. ndax yi ñu ngi ñëw naa xar yi ak tabaski gi nga xamante ne si ci lañ jëm si. client yi ñu ñëw bu baax ndax ñoom la nit ñi bëgg léegi. yow daal yaa ngi gis sa bopp ci xar yi daal macha allah bu baax ndax ñoom la nit ñi bëgg ñoom la nit ñi faale boo si ñu defar leen nii nit ñi leen daw jëm moo tax nit ñi ba di leen wut waaw ñoo xew waaw Bathie ñu gis ni daral gi fi lañ la fekk ni client nga ngay jënd li nga xamante ni si moo di xar di préparer sa tabaski ndax xar yi na wala cherul wala yomb na daal waaw xar moom fi mu ne nii moom yombul quoi yombul xar yi yombul cher na sa trop quoi sa timil xar bu suur jafe na quoi dañuy ñëw fii dañuy bëgg xar bu suur mais dañuy war bi sonn ndax boo xoolee instant bi nawet bi ni mu demee ni doxul quoi moo tax instant bi nii xar bu suur jafe na dañuy obligé rek jënd mais xar yu xar yu xur yu suur boo ko laalee prix bu seer lan lay wax quoi waaw lu mu ndaw ndaw da nga ko jënd ay cent cinquante wala ay cent soixante quoi xar bu xar yi dafa seer quoi xar yu moo tax daal xar yi seer na mais dañuy obligé rek jënd ndax bis bi moom lu metti métti bu doon jar trois cent tamit dañuy jënd quoi ndax bis bi jar nañu ko. Moustapha Kanté ñu fekk la fi ci daralu nindi gi nga yor sa xar bu baax ma sha allah ñu doon laaj xar bi lo koy jaay xar bi jaay na ko andi 450 rek. 450 mille nga koy jaay ñu doon laaj ndax xar yi jafé jafe yi dund fi ci daral gi xar yi cher na wala cher ndax client yi ñi ngi ñew nice. client yi nak mom moom taxaguñu ñew bu baax xar yi moom ñu ngi ñew bien sûr mais client yi mom moom taxaguñu ñew mom bu baax wax deug yalla est ce que du li ngeen ko acc ni cheral ko xar bi 450 mi ci jamono ju metti ji ni est ce que lolu motax client di daw non non ajuñu ñuko sax ajuñu ñuko sax ajuñu ñuko sax xam nga xari mom ni nga ko jënd rek nan nga ko mëna jaay wa ni nga ko jënd rek nan nga ko mëna jaay li nga xam ne mo ñu naqari ci daral gi xëy amna sécurité nak waye njaay mo xam ne mi le lo nara jaay keneen di ko yàq ko daal moo fi moo fi mo fi mo fi mo fi ki yorul xar yorul xaalis waxale wut fekk kuy waxale mu dik yàq ko dal mo ñu naqari ñan ñi nga xamante ne si ñoo di yàq seen prix wala ñu ñew di yàq li nga xamanteni mom ngeen liggéey ci daral gi am ba gaay bari na fi gone yo xamne ne yi lay ñom jaay ñu xar jaay ñu ñum xar dañu ñew fi rek euh, dik fekk yow nga am sa client di waxale am xarab mu daal dik dik japp ci lamb fi lamb fi ne la xarmi da ëmb wala mu na xarmi euh, xarmi dafa dafa bejeen bi dafa dam wala xar sikkel ko dal est ce que loolu ñi nga xamante ngeen di jakkonté fi daral bi mënu leen safara mënu ñu ko safara gisunu ko ñu ko mënu ko saafara gisunu ko saafaral. ngeen dëkkee nara bo waxe ñu ne da ngeen di liggéey ñuy liggéey li mo fi ne. fii dara lu dindi la. ñun ñëpp ñi fi nek ñëpp fi la ñuy liggéey fi liggéey waye courant amuñu ko courant liñ manqué ci la bok amuñu courant japp nañ ne nak waron nañu mëna am courant ci réew mi ndax courant bi ci réew mi ci lañ bok ñun dal liñ gëna nek suñu problème moy problème courant lampe yi moy suñu problème. bu événement ñëwee tabaski deux jours trois jours ñu coupé màggal deux jours trois jours ñu coupé. est-ce que loolu noonu mun leen ci dox am ñaxtu maanaam ba gis ci seen bopp daal ci problème courant bi. loolu li li ci mënoon a dox mooy zeefu daral bi mooy njiit li moo waroon a jiit lépp waaye du régler dara. li daral gi rëy rëy ñaari lamp fi tàkk mbaa benn te buy jub tabaski lañ koy taal bu jàllee ñu fay ko buy jub màggal ñu taal ko bu jàllee ñu fay ko. mu mel ni jafe-jafe yooyu nga xamante si moom ngeen di jànkonteel fii dara est-ce que amu leen ci lenn loo nga xamante si kenn mën na leen koo saafara wala yéen ngeen saafaraal ko seen bopp amaguñ ko de dem nañ commune rurale waaye liñ biñ demee commune ñi dem commune rurale nee nañ wax ko waa commune rurale waaye commune rurale ñoom buñ demee ba jóg fi suñ demee ba jóg buñ jógee ñaari fan la fi def wala ñetti fan courant bi tàkk ko bu jeexee mu fay. da ngay jënd euh, nga woote ba mu jeex doo am dara Tigo Orange espèce recette yëpp ci yem ñun daal ñu ngi mel ne ñu ne ci digg xaw ma coppi xaw ma région moom amuñ ci dara bu ñu dimbali woon ci antenne réseau daal ñu tegal ñu ko fii moom moo macha allah. Omar Niang ñu gis yaa ngi fii ci daralu ni di sëñ Fallou gi yor say buum di ko jaay naka buum yi ndax mi ngi dox pour le moment nii wala doxagul ak loolu yéen jànkonteel nga ci am. ah buum yi mi ngi dox waaye yenn saa yi da ne xëccoo yeeg yooyu rek saa dina dox yenn saa yi du dox noonu saa mu dox yenn saa yi du dox ñan ngay xëccool buum bumi xana ya, sama morom yi ya. andal rek di njëkkante jaayante bi rek hmm. aha no rek mau am kini ya budu ci marché bi na nga fexe dengal ko boleh bu la lele top li bahut li gisal kar mungkin begeng bëgg brom wah borom wax boy fayit nga fay ko en bul jaar fenn soko defé euh dana bah, ndax mom commandant bi la xasayu na ci li jambal ben say say bu dox bu dana ko tek tayit ñom ñu ci bir dara bi di circuler luñ fi gis lu jubati daañ ko jàpp kay jaajëf mbokk yi mu mel ni gis ngeen li leen indiloon fi nga xamante ne si moo ci daralu ndindi gi yan jafe-jafe leen fiy gis nañ ñëpp nag ba ñaxtu li nga xamante ne si moo leen dérangé ci daral gi ñii ngi ñaxtu ci wàllum réseau ñii di ñaxtu ci wàllum courant ñii di ñaxtu li nga xamante si mooy client yi ñëwagul ak xarit cher yi liñ leen digtaloon du leen ko indil fii ci dara bu ndindi ñu leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah